jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokk internet yu 5M TV Sénégal eh, dal leen jàmm ci seen chaîne bile eh, xibaar yi dañuy rek koy tàmbale kàddu yi nga xam ni moom Pape Alé Niang yëkkati na ko eh, jëmale ko rek ci compteur prépayé yi lee dina ko woyofal mu ni jamono ji kay diisal la daal di tudd ginnaaw kàddu yi nga xam ni Guy Marius Sagna wax na ko fi mu nekk ni gis nañu Senelec daal. système bi ñuy doxalee mbiru njuuj njaaj dong rek lañ ko mën a tuddee ndax ñoom lu duufal seen gafaka dong rek lañ fi nekkee ginnaaw googee nag moom di rek def ay njuuj njaaj ci askan wi rawatina nañuy fayee. ñu daal di wax ci wàllu nag politique moom Amadou Ba ginnaaw rek ba mu nekkee ganu may Maimouna Ndour foofee ci 7TV doon ama rek émission bile àdduna nag wax jëm rek Sénégalais yi. nañu bàyyi rek njiitu réew mi ginnaaw moomee sax moo daal di yore nag cëggalu guyam ngir nag mën a fësal kan rek moom moo war a wuutu moom mi nga xam ni moom moo fi jugee kon nag nañu rek déglu waxu kilifa yi comme rek na ko sëriñ Serigne Mountakha di waxee saa su nekk ginnaaw kàdd yooyee moom mi nga xam ni moom mooy ilimaanu jëwriñ yi itam. nee na mënul yëkkati benn kàddu wala wax lenn rek te njiitu réew mi Macky sàll yëgu ko wala xamu ci dara kon loolee moom mënu cee wax fa muy jeexalee rek jëm ci candidature bi nga xam ni jàpp nañu moomee mën na ko rek daal di nekk mu ni loolu daal ñu ngi rek toog di xaar ginnaaw gi moom njiitu réew mi rek moo yore dogal gi moom rek la ñuy xaar ba xam lan lay daal di def.